jasaaka yow sang bee ñi ngi lay siyaare bay saam du yaay ki tax ba nu xam ki borom tuuba bismil ilaahi may door tey sant yàlla mi buur tey sant sëñ sàmbay ngir maam borom tuuba xanaa du yaay ki jagoo xasdul liwaaj ilaahi te man de maay ki jagoo waylaak borom tuuba jërëjëf sëriñ Baye sàmba su ngeen déggee way yooyu mu way xel yu baree bari mën naa bokk daje ci liñ dëgmal liñ dëgmal nag mooy lan mooy bis bu tedd bi daa am fii ci Mbàkke Bawol di bisub Serigne Sam liggéey liggéeykatub yàlla bu mag boobee bis bi ñu ko daa amal fii ci Touba Mbayeen moo delsi balaa dugg ci loola it nag ñu jaare bu baax te ñaan Cheikh xaal Basir mi fi Serigne Touba yàlla na suñ borom aar ko sàmm ko niital ko aw yoonam ba màgg fi mu jëm mook taalibe yépp di ñaan suñ borom mën na ko sañ na ko yàlla na ko def bisu sëriñ Sam boobu nag moo dellusiwaat tey jii ñu dajawaat fii ci Touba Mbayeen ñu nuy déglu ak ñu nuy seetaan ñëpp li sabab bi rek mooy nañ ko daan defe ñu defe ko nu ko raw tey bokk yëpp a ngi nii ci njiital Cheikh Amadou Fadal Mbaye ak euh, sëriñ Omar mboole seen ñoom ñëpp ak sëriñ Ibrahim xarit yi wala rëy taalibe yi ñëpp a ngi toog kon nag bis boobee la ñu dëgmal di ko woote fës ko yéene def nu raw nañu ko daa defe ñoo ngi ci ànd ak bokk yëpp fës yéene jox kenn ci mbokk yi muy sëriñ Omar Lo moom itam mu jotal ci ay kàddoom gannaaw bu sëriñ Omar noppee danañ jox sëriñ Ali Suur moom mooy wax ci daayira sëriñ Sambi ak sëriñ Xaadim Jéey ak sëriñ Xaadim Jaañ moom mooy woo dëkk yëpp yi nga xam ne ñooy dëkk yi fasantikoo fii ñi leen di woo ci bis bi ak sëriñ Galas Mbay Jéey moom dana wax ci bokki daara yi alxuraan yi ñoom ñëpp itam ñu teewe ko def ci lu raw lañ ci la def gannaaw bu loolu noppee Cheikh Ibrahim dana ci sànni ay kàddu bu noppee Cheikh Mouhamadou Fadilu Mbay ñaan kon date bi nag mi ngi doon le 8 mars lay doon alxames lay doon fii ci Touba Mbayeen bisimillahi rahmaanirahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen nuyu bu baax kenn ku ne turam ak santam bokk réew mi ak bitim réew di leen ñëw nuyu ci bis bi mag bi ñu jëm bi Cheikh Ibrahima di taxawal di ko di ci fàttaliku Sëriñ Sam Mbaye ñi ñi leen ci nuyu di leen ci wax ci turu bokk yëpp nuru ci ci di jiital bokk yi nag suñ kilifa gii toog suñ pegg Cheikh Mouhamadou Fadil Mbaye mi nga xam ne moo nekk ci bopp njaboot ak mbayeen ci turam la ñuy waxee ak kaddoom la ñuy waxee ñu ngi leen di woo fu mbokk mën a nekk fu xarit mën a nekk fu wëllëre mën a nekk bokk yu yëpp rek ñu ngi Cheikh Ibrahima nee na bàyyiwut kenn ci bis ba le 8 mars incha allahu na ko ñëpp fannoo fasoo ko kenn ku ne la nga ci daa taxawee na la yéene nga fas yéene ko jëmmal bu soobee yàlla bàyyiwuñ kenn fu mbokk nekk daal fu xarit ne fu wëllëra nekk ñu ñëpp ñu ngi bokk di leen woo ca bis ba alxames ja le 8 mars incha allahu bu ko kenn fàtte ca alxuraan ji ca xasida te lu waaye man lu baax ngir fas yéene ko tax si muhoo bi sunna ne li ñuy fàttalekee waaju baax daal neena noonu la fas yéene mu gën a fis ca bis ba gën ca alxuraan ja gën caa bëri ak xasida ya ak sikkar ya incha allahu bokk yëpp la la ko àndal di ko woote loolu moo mooy mooy kàddu yi nga xam ne moo jógoon sëñ Ibrahima wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi ñoo ngi sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sant Cheikh Ahmadou Bamba te ñaanal Cheikh Sidil Muxtaar sunu borom yokk ay leeram tataaf ñu ci barkeem di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa ibnu Cheikh Mouhamadul Basir sunu borom dolli aw fanam yokk ak wéram ba yéen yi nga xam ne moom la am yëpp mu defee ko nam ko soobee su ngeen gisee ñu toog fii nag yëkkati kàddu ñoo ngi yëkkati kàddu ci turu daayira soppee Sëriñ Sam bi nga xam ne moo nekk ci Touba Mbayeen ak li nekk ci biir dëkk bi yëpp ci njiital Sëriñ nga xam ne moo nekk ci noo ngi woo mboolem soppe boo xam ne nii ci biir daayira bi nga tënku tañ ànd liggéey bi moo xam ci biir dëkk bi wala ñu nekk ci biti dëkk bi yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ ñenn rawatina daayira yi nga xamee ne sëñ Ibrahima dafa am leen teeg ñoom jàmm ba ñu wootee seeni bis mu cay dem di ci ànd ak ñoom ñoom ci woo mboolem fu daayira mën a nekk wa rahmatullahi mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen su ngeen gisee jataay bii ngeen xam ne ñu ngi ci wàccaayu màggal ak sëriñ Sàmbay gi yamoog la 8 mars ñu fas yéene ceewoo mbokk yi ñu bokkal Mbàkke ak mbokk yi ñu bokkal Touba ak mbokk yi nga xam ne ñoom lañ dëkkal ci gox yi fasantikooy di woo mbokki Daaru Rahman mbokki Duy Sangu ak mbokki tuuba Dagga Juuf ak mbokki Ndokk di ci woo mbokki Touba Béto mbokki Touba Bobarin di ci woo mbokki Ngasama di ci woo mbokki Touba Daaru Salaam di ci woo mbokki Ngaabu di ci woo mbokki Boofel gi nga xam ne Sëriñ Maodo ba miñ ko tuddee fa la dëkk di ci woo mbokki Sam di ci woo mbokki Lougaloo kon mbokk yi ñu leen di sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jëf te di leen siyaara te di leen ndokkeel ci bis bii ñu dëxmal muy le 8 mars di bis bi nga xam ne baaxoo nañ ko wootee fii ñu toog yi ñi nga xam ne ñoo bokk ak yéen dëkk bi te bokk ak yéen it bis boobu ki ñu wooteel bis bi nag du kenn ku du Serigne Sam Mbaye radiallahu taala anhu kooku nga xam ne jullit yëpp amee nañ ko njukkal waaye murit yëpp amee nañ ko njukkal bis bi nag man lañ wax ma wax ci turu ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngale alxuraan ñu woo leen ci bis bi ci turu sëñ Ibrahima ak bokk yëpp kon bu ko defee sëriñ maam mi nga xam ne mooy imaam fii ci dëkk bi te yor daara ci moom lañ koy tàmbalee sëriñ Xaadim Jéy sëriñ daara sëriñ Alioune Diagne sëriñ Baara Ñang ak sëriñ Mansour Si waxte wu it sëriñ uh, maam sëriñ Mbay Saaxo sëriñ Mamour Diop ak sëriñ Modou Faali fàttewuñu sëriñ Omar Ndiaye Nogay fàttewuñu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jàng xasaayit muy duruskat yi mbooleem fu waay nekk ak képp koo xam ne yaa ngi gis suñu jëmm dëkk suñu dégg suñu kàddu ñoo ngi lay woo ci boobu ñoo ngi koy amee nag fañ ko daa amee nañ ko daa baaxoo amale nag bu ñu xëyee dañuy jàng alxuraan ak durus ba fu suñu borom soobee ñu dugg ci njàngam mi ci yëkkati mi kon bu ko defee daal woo nañ ñëpp bu bàyyiwuñu kenn kon ñoo ngi ñaan suñu borom fekk lanu ko def ko nañ ko daa defee ci barkeb sëriñ bi mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sëriñ Muntaqa xalifatul xaam di taaxifatil muridiya di ñaan suñ borom mu yàggal ko fi te weeral ko di ñaanal Cheikh Abdoulahi Mbacke yàllay buur ñaanal sëriñ Youssoufa mbay mi nga xam ne moo toog jotaayu maam Cheikh Mbaye ñaanal Cheikh Ahmad Fadal mbay moo toog jotaayu sëriñ Touba mbay eh, di ñaan ci yàlla eh, ñu ñaanal nu bis bi liñ ci bëgg lépp ñu daj ceeg tawféexi sëriñ Touba bu ngeen déggee woote bi nag ni ci mbokk yi yi jiitu wax nañ ko kan la ñuy defal bis bi di sëriñ Sam Mbaye radiallahu anhu mi nga xam ne li ko dale ca maam ya di maam Cheikhul Kabir ba ci moom kenn ku ci nekk ak ayam ñëw ne fii fekk ci sunu maam sëriñ Cheikhu mbay di def ay bis ñu di ko ganale bis boobu rekk lañuy dundal ñu ngi ci woo ñëpp ñu jiital ci woote bi sëriñ Mouhamadou Lo Ngaabu mi nga xam ne day sunu wëllëre di kenn ci noonu am taxawaay bu rafet ci noonu ñu ngi koy woo bu baax a baax di woo monsieur le ab Abdou Mbacké Ndaw di woo monsieur galo Ba di woo ancien ministre Moussa Sakho di woo soxna madame mbay ak mbooleem ñi nga xam ne ay autorité nañ nekk ci dëkk bi yëpp ñu ngi woo ñëpp di ñaan bis bi daal moom rek la am moom rek la ñuy woote di ñaan ku ñu ci wuy si daal lépp lu luñ ci am yaan nañ ko bokk ak yow wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bis bi nag ñu ngi ko dara jaale ren sëriñ Maodo Ba borom boofel moom lañ ko dara jaale waaye nag di ci ñaanal soxna Fat Ba mi nga xam ne dafa bokkoon ci soppee sëriñ Samba yi doonoon ko ci ràññ ko doonoon njiit la ca ginnaaw raay yàlla dogal mu jóge fi moom dañ ko ci ñaanal jox ko ci ab cër ren. mooy ñu ngi ci woo sunu mbokki jànkate alxuraan yi waaye di ci woo sunu mbokki jànkate xasida yi li ko dali ci ka ca nekk ca kaw di sëriñ Abdoulahi Ñang géwalu xaadim ba ci gën a nekk tu tànk ñu ngi ci woo ñëpp di ñaan ku ñu ci wuy si liñ ci am yàlla nañ ko bokk barke borom Tuuba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu yokk yi asalaamaaleykum wa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen gërëm di leen sant ñaan ci yàlla ak yonent bi Sëriñ Tuuba bis bii nga xam ne ñoo ngi koy séentu muy bisub suñu jàmbaar ji sëriñ Sam Mbaye radiallahu taala anhu du ko séentu nii ko ñu jiitu waxe ñaan ci yàlla ak yonent bi sëriñ Tuubaa may nu ñu fekke ko te lépp luñ ci jëf yàlla nañ ci am ngërëmal sëriñ tubaa bis bi nag bis la boo xam ne bu yàgg la bisu cosaan ndax Cheikh Ahmad Saxir radiyallahu taala anhu moo daan ñëw fii di fi fekk si sunu maam seexu Mbay bu mu fi jógee ku ko fi masa ku ko fi wuutu fekk nga fi ka mu tolloo ci ñun ba nga xam ne sëriñ ba sëriñ Saam mi nga xam ne moo mujj ci ëtt bi sunu wayjur jur fi doon seet si ci ci ci waa kër sëñ Mat Saxir loola nag mu doon bis la boo xam ne bu mag la ci ñun ñu di ko woote nag ci mboolem bokk yi fépp foo xam ne bokk yi rawatina nag lii askanu mbayeen ndax bis la bis bi bis la boo xam ne moom sunu bés la boo xam ne amuñu ko ñaar amuñu ko ñett benn lañ ko am ñuy ñaan nag di sàkku ci mbooleem julit mboolem murit ñuy sàkku bépp julit bu ko yàlla man loo nga teew leenu fi teew fi ñu ànd ñaanal ko ñaan gi sunu boroom yàlla na ko nangu li nga xam ne nag mooy bis bi rëy yàgg na waaye Cheikh Ibrahima mii nag dañ ko ci dolli ñaan ndax fii mu egsi nii moo ko fi indi kon yàlla na ko yàlla may fanu gudd waa nag wér sàmm ko te sàmm njabootam ndax bis bi moom bis la boo xam ne bis bu waa la ak mboolem bokki Mbàkke ndax bu mu bu mu fi ñëw suñ ma saxee bu fi ñëwee dañ fi daan yendu mboolem fu mbokk mën a ne ñu yendu fi ba ngoon muy dem ba Cheikh Ibrahima mi nga xam ne moom lañ tudd Ibrahima mi di fi ñëw di fi am ay bis bis bu ne ñu rey nag loolu lépp mu muy am ba bis bi kon bu ñu demee ba egsi fii mu mu weesu dimension ba mu newoon lu baree baree bari kon nag ñoo ngi ko ci sant bu baax te di ko ñaanal di ñaan ci yàlla ak yonent bi képp ku yàlla mën loo mépp mbokk foo mën a ne soo su yàlla mën loo nga teewlu ànd fi ñu ànd ko ànd ko sant ñu ànd ko ñaan ñu ànd ñaan gi yàlla na yàlla nangu ñaan yi di barke Seydina Mohamad rajo Xadim Rasulullah barke Cheikh Ahmad sang bee ñi siyaare Baay Saam du yaay ki tax ba nu xam ki borom Tuuba bismil ilaahi may door tey sant Yàlla mi buur tey sant sëñ Sàmbay ngir maam borom Tuuba xanaa du ki jagoo